ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi arrahmani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh euh, kon ñu ngi ànd ak seen télé Touba TV Argentine ngir wane lenn rek ci màggal gi kon ñu ñi xamal mbokki taalibé yi nga xam ne ñoom ñooy suivre télé bi yëpp ñe ñi ngi si dëkk bi yi nga xam ne mooy Touba Ndamor demba don dëkk boo xam ne buñ ne histoire wu màggaluk Ndaam Saan aussi da cee doon da ciy joué rôle bu rëy rey ndax euh, mbooleem xeeti xéewal yi nga xam ne sax fee ci biir ndam Saan dañ ko fay jëfandikoo dañ koy yembale ci dëkk bi di ko yóbbu foofu dëkk bi nag bon dëkk boo xam ne dafa bokk ci màggal gi lool la tax ñu ne day bokk ci màggal gi maanaam euh, tool bi njëkk a bay ngir jébbal ko Serigne Touba Khadim Rasoul di Serigne Abdoul Zane Mbacké ci dëkk bi ñoo ko taxawal di Touba Ndam Mor ak Touba Ndam ak Touba Ndam Balla ñoom ñeenti dëkk yooyu lañ boole tu boole leen muy benn daayira tudde ko al muhibbin al mukhlisin année bi ñu ko jëkkee bay Serigne Abdoulaye lañ ko jé jégal ñaareelu at bi ñu jébal ko Serigne Fallou Mbacke ñetteelu at bi ba ci àgg ci Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou moo leen tuddee al muhibbin al mukhlisin kon dañuy ànd ak yéen rek dugg ci lenn ci biir kër yi ngir wane li nga xam ne noonu la liggéey bi doxee ci biir kër yi ak yenn ci ay kilifa yoo xam ne san nañ ci ay kàddu ngir ngeen mën a teewal lépp tamit di dund bés bi comme na yéen a ngi fi daal. xanaa di leeral lan moo sabab daje bi nga xam ne moom lañ daje fii tey mooy ne mbokk yi nga xam ne ñoo bokk ci daaira muhibbin al muxlisin di ay ndaw ñoo xam ne ñu bëree bëri ci ñoom seenu seen commencement sàkku xam-xam ñu ëpp ci ñoom dafa bàyyi ko ci kilifa gi toog di Oustaz Cheikh ñu yëg ne nag wax ji nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne man alimaka xarfan waaxida fa huwa mawlaaka loolu la ñuy jëfee maanaam képp koo xam ne xamal na la benn baat rek bu boobaa sa kilifa la te mat na la sëriñ yëg gi ñu yëg loolu nag moom moo tax at mu jot bu ñëwee ba ci bis bi nga xam ne mooy bisug màggalu Sànnoosi ñu dajale ay addiya lu mu néew néew ñu ñëw indi ko ko ziyaare ko ko te doon ay addiya yoo xam ne tamit ay addiya yu ñu xeeb lay doon waaye dañuy faral di wax seen biir ñoom ne wañ wàññi boo gis rek lay commencé xëy na seen yéene ëpp na li ñu indi waaye ci li ñu yéene moom seen yéene ëpp na li ñu indi at mu jot li ñu yéene na ëpp lu ñu indi waaye dañuy def ndànk-ndànk rek ci li ñu wax ñoom ne di ñaan kilifa yi toog fii yëpp ñu dolli leen ay ñaan ba bañ dem ba ziar bi nga xam ne moom lañuy ñuy mu doon ziare boo xam ne bu mag lay doon ci addiyee dana ëpp bu baax kon daal loolu rek moo sabab jataay bi ñoo ngi amati mbégte lool dalalaat leen ci barab bi nga xam ne yàgg ngeen fee ñëw yàgg ngeen fee ñëw ngir euh, mott li wëllëre waaye yàgg ngeen fee ñëw it ngir feeñal seen yéene ci koo xam ne dalee na a defal lu baax te ngeen yëg ko lool nekk ñu ko jarajafal ñu ko jarajafal lool euh, ngeen am yéene yi ak mu ne ngeen ñëw euh, siyaare jaajëfal ko dangeen ngeen a baax rek waaye loolu sax euh, ci ngeen dëkk guddeeg bëccëg ndax waxuma li ñu jaar ci suñu loxo ci wàllu njàng tàmbalee fi waaye ñëpp ñi nga xam ne ci dëkk bi lañ dëkk di suñuy rak suñuy doom ñëpp cër yooyu la ñuy jox cër bu rëy boo xam ne fu ñu gis jox mu cër kon lii du ak mu ne benn yoon da ngeen koy def waaye fu ma gisee ak yéen fu ñu leen gis ku bokk ci yéen jox ngeen ak ab cër kon loolu moom lu ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm bu baax euh, ni ma koy waxee toujours nag dëkk bi xale yi leen yàlla leen yàlla jox waruñoo def lu dul ñaanal leen képp moom lañ leen war a def dama koy wax toujours fa ñu fa la ñu toog ci jataay boobu ci mag ñëpp yi toog dama leen ko wax li leen dëkk am ngeen dëkk boo xam ne di am ngeen gone lu baax lool doona yoo xam ne ku ca man yaa ngi ci ku ca mën a gulit ngeen xam ne lu baax nekk ci am am am xelam lu baax nekk ci xolam lu baax moo nekk yéen ndax jafe-jafe yu bare bare bare bare yoo xam ne amoon dëkk bi amoon na ko taxaw ngeen ci taxawaay taxawaayu la gannaaw bu ku ne taxawee sa sa waaju ci wàccee ko lu bare bare bare parce que màggal gii tey li muy rëy rëy rëy rëy daanaka xale yi ñoo def lépp mag dañ ci barkeelu rek ku ne ci taxaw nga sa njaboot taxaw nga sa waajur jënd jënd lañ war a jënd def lañu war a jënd def lépp ku nekk si yéen def la loolu fonk dëkk bi loolu taxaw ci taxaw ci ba fu nu amoon problème ngeen ngeen indi ci seen loxo euh, benn si école Al bi nga xam ne moo nekk fii ci dëkk tey nga xam ne ñaari at yi ci gannaaw yëpp tey jii benn waajuru dong yëkkatiwul ab dërëm di ko fay yéen yéen a koy fay groupe bi nga xam ne moom la seen jàll suñu jiite te am ci Pastef lool ak mbooloo mi ànd ak moom ñu ci dugg tey it ñi ci ñi ci duggagul it ñëpp ay ñëw incha allah ndax liggéey bu yaatu la ndax Al boobu dañ ci sumb aw sumb wu rëy rëy rëy ndax fii mu nekkoon dafa xaw a xat léegi dañoo ñaan bàyyi mu loo benn pàkk ci dëkk bi bëgg ko faa toxal bëgg ko faa toxal tabax fa ay yu bari dafay fexe ba ñuy yokk ñuy jàngale ba suñ rakk yi seen rakk yi seen suñ doom yi suñ sët yi bu ko defee ñu mën faa jàng jàng mu baax moo xam ne duutu am benn jafe te defee kon laaj na ñu taalalaat leen loxo yéen ñëpp dafay groupe boobu suñu gàll si jiite bu ko defee ñu fexe ba ñëpp bokk ci ku ne la nga man nga di ko ci def bu ko defee danañ ci man a taxawu taxawaay yu mel noonu dafay daal kon loolu ñu ngi leen ci soññ bu baax nga xam naa ne yéen a ngi ci sax yeneen yi ngeen war a def yëpp yéen ngi ci kon duñ def lu dul ñaanal leen rek yàlla defal leen tawfeex yàlla defal leen taysiir yàlla jàpp na seen mbir ba lépp lu ngeen yéene ci lu baax yéene ko ci dëkk bi yéene ko ci liggéey bi suñ tubaab bi yàlla suñu borom defal leen suñu xel dal na lool suñu yaakaar it yokk na lool ci taxawaay bii nga xam ne moom ngeen taxaw ndax fépp fu barab bu buñ war a dara buñ taxawee rek gis leen loolu nag am xel mu dal bu ñu ko weesu kon noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal bu baax liñ ne daal képp koo xam ne jàngal nga ko boo ko ñaanalee ñaan nga dal kon loolu ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo yor lépp te du jeexal dara na topp kenn kenn kenn par kenn kenn ku nekk ci yéen mu sottil ko ay xéewal yu bare baree baree bare bari ba lépp lu mu yéene defal lislaam lépp lu mu yéene ci ay waajuram lépp lu mu yéene ci dëkkam ak réewam suñu borom defal ko noo ngi koy ñaan ñëpp di leen gërëm bu baax di leen sant di bu baax a baax a baax ah tey jii nag jataay bi dañ cee lool ndax da ngeen fee dikk fekk fi ay kilifa fekk fa ay kilifa yoo xam ne pour ñu fekk lii loolu seere la su rëy sëñ Modou mi ngi nii mooy xalifa bi sëñ Kaale sëy di kilifa fekke na ko dafee suñu bàyyi sëñ kàbbu bëgg dëkk bi léppam di dëkk yaayam jóge ci dëkk bi mu ñëw fekk jataay bi kon lool yi bëgg nañ ci sëriñ bii lay jóge ba Sam Fall ak suñu rakk yi sëriñ Taala Lo nga xam ne maay seenu xalifa tey sëriñ xaadim ñoom ñëpp ñu teew ci kon loolu suñ kontaante la ak taalalu suñ rakk bi nga xam ne ñoo bokk lépp ah, kii sëriñ Mokhtar Sey moom mooy directeur école Al Azhar bu colom xaal moom ñu yàlla mu teewe ko kon daal jataay bi mel na ne gën nañ cee kontaan bu baax a baax kon daal suñ xol dafa sedd ba xam naa ne li ñu waroon a wax lépp xëy na duñ ko man waaye boo bu guddee cant la bu ak cant la sant nañ leen bu baax a baax ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax yàlla bu leen dara dog ba ngeen egg fu ngeen doon egg ci barke si yàlla na ngeen am xéwal yu bare bare bare bare bare yàlla yàlla faj seen i aajo yàlla leen yàlla dimbali allahumma salli ala sayyidina muhammadin am nañ ci mbégte loolu nag ci jataay bi ñu fekkee waaw sëñ sëñ sëñ sëñ Saliou Mbacke nag danaa wax ne man Saliou de lu ne nangu naa ñu jàppale ma ci waaye nanguwuma kenn ku ma jàppale ci tout tànk yi ndax fañ ma jaarale rek fa laa leen jaarale sëñ ustaas mi fañ ko jaarale woon rek fa la leen jaarale waaw lépp luñ sikkut ci jëmmam ji duñ ko sikk seen jëmm ji nga xamante ne yéen la fa jaarale woon kon nag yàlla na leen yàlla taxaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah nee na bokk gi xam nga man fii bu toogee rek daanaka ñu wax looy dama sëñ te bañ waaye waaw nee na ma bokk nee na bokk gi moo jiitu taalibe gi ndax lii mu def bokk gee tax mu di ko def waaye juróom la mu doon def bokk ga la doxaloon te moom it fa waa juróom tegewoon tànga mu teg ko fa dara waralu ko lul mbokk goog nga xam ne moom lañ doon moom la bokk fii moom lay doxal ba def lii mu def waaw loolu nag a ah moom mooy rek li nga xam ne ni moom laa moom laa ñu ci waroon a wax mi ngi sàkku nag ngeen ñaanal ko mu yàgg fee dikk yàgg na fee fekk te yàlla ci boppam musal nu ci lépp loo xam ne nii lu koy gàllankoor la lu koy gàllankoor lu ne daal loola yàlla na ko yàlla dindi lépp lu koy gàllankoor rek loola yàlla na ko yàlla dindi nan ko nañ ko ni ko bokk ñaanal ba mu yàgg fee ñëw yàgg nu fee fekk voilà sëñ mel ñëw nga tey nag nga jógal sa bopp ñëw toogal fi sa bopp ñun daal wax dëgg yàlla amatuñ sa bopp dara lu ñuy wax daal nun amatuñ ko suñ xol sedd na fii nu toog nii nag ci néeg yii man mii di wax ak yow man naa ne fi laa wate mboot doomi jiitle laa fi maa fi ëpp la ñu fi dëkk ndax fi yàlla daa ne ma Ibra bu ma ko ne Mbàkke mu ne ma màggal si nga ma ne ko waaw mu ne ma boo màggal seede li ma bëgg lépp am naa soo màggal seede li ma bëgg lépp am naa bu ne maa Ibra ma ne ko Mbàkke mu ne ma yowee sa baay li ma wax yow laa ko wax kat lu kon man kër gi moom ndax ñoom ñoo fi juddoo fii laa juddoo waaye maa leen fi ëpp ñun ñu bokk ci kër gi ba abaa ji maa leen ëpp ñu ndax dama dama am ci ba abaa ba pare doon amal féete waat ak moom kii moo bokk njiitu suñuy mag it kenn ku

amul fii la ñu yendu tey ci ndaam fas yéene bu ngoonee nu dem sànn ndax yàlla ak yonent bi sëriñ Tuubaa maam Siré Lo mi may lii lépp noo ngi sant yàlla di ñaanal Baye Modou Lo yàlla na fi yàgg te wér yàlla na gudd fan maam ay Aydara yàlla na sut maam dara aw fan te dese barkeem ndax kuy wër alxuraan boo ñëwee ndaam fii ngay yem kuy wër diine boo ñëwee ndaam fii ngay yem kuy wër ak jub boo ñëwee ndaam fii ngay yem. tubaarkàlla macha allah maam Siré moom ku ne xam na ko waxu baaxam ak àndoonam ak Serigne Touba loolu moom daanaka lott nañ ci daal waaye nag yàlla xam na yonent bi xam na maam Siré xam na sëñ Touba xam na waaw noo ngi ñaan nag ci yàlla ak yonent bi Serigne Touba yàlla nañ fi ñëw ay ati ati ati ati ati at tew yàgg fi fekk bàyyi ma loo ndax man wax dëgg yàlla ba duggee Touba ba nëgëni mooy ñëw ndaam te mooy ñëw ndaam nag. yàlla ak sëñ galas loomee ak waa këram ñoo ma indi ndaam ma ànd ak ñoom nag te yàlla rek tax nu ànd yàlla na yàgg la yàggal ànd bi noo ngi ñaan ci barke bi yàlla ak yonent bi mu am siraloo maam Moodu yàlla na yàlla yàggal ab toogaayam yàlla na yàlla yàggal ab toogaayam te mboolem ku nekk ci ndaam góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla na yàlla guddal sa fonte wéral say cër te la maam siraloo jaayantoon ak sëñ Tuubaa yàlla na ci seen wàll génn muy ñi ci dëkk bi ak ñi ci bitim réew ak ñëpp rek maa ngi leen koy ñaanal ci barke bi yàlla ak yonent bi maam Sirelo ak sëñ Moustapha Mbacke bi ma yaakaar. sëñ Touba ab liggéeyam tànk kanam la waaye am tànk ginnaaw ndax maagal sànni gii bañ koy tàmbali dañ ko doon di ko def buñ ko tàmbalee di ko def di ko def ba mujj xale yi ñuy teg ne nañ nañ def ak maagal ñoom taala ñeeg ay xalifa ñoom mag ñi daal ak Mbacke Seck ak ñooñ di teg ay pare ci gerte ñu dem di ko ji di ko yit sëñ Fallou di ko it sëñ Fallou ba sëñ Fallou làqu ñu jot ko sëñ Abdou Lahat keroog bañ ko yitee sëñ Abdou Lahat booba kabi yoo lan daan luye bañ eggee sëñ Abdou Lahat bi jënd jënd aw kii tàmpe ko jox leen ak juróom ñett téeméer ne leen maagal gi yóbbu leen ma ko ndaam sànni aussi fa sëñ Touba weer weeru koor gi ba ba ba ba maagal weer fa ba weer wa dee nañ ma ko fa yóbbul daal dindi juróom-ñetti daal di leen lii maa leen ko ci jàppale seen addiye maa leen séeré fii maa leen séeré ëllëg yamal xëyaam kon loolu lu rëy la xale it am jom lool takku nag di ko def nu kontaan torop di leen ñaanal ci yàlla jalaal waxal kamal yàlla yokk seeni xéewal guddal seeni fen wëral seeni cër ba ni ñu ko awee seen baay liñ ko ndax taala ñoom ñi den taaw bi seen ta seen baay ci seen baay abba lañ ko jëlee woon ñoom jëlee nañ ko seen baay yàlla nañ dund ba seen doom di ko jël ci ñoom ci daraji nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kontaan lool nu teewaat koy déwén déwén yàlla nañ ko màggal junni at ak junni at ak ñaar fukk yàlla nañ ko màggal yàlla guddal seen fen bàyyi leen seenu njaboot làq leen fa yàq yëgut fu ci waaye lu ci waaye ju yóotu te da koy am ndax sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw amul tànk kanam la am fa mu dem ci géej gi àndul ak kenn dafa dugg ca gaal ga gaal gi doomu yàgg madame bi ne ko Moodu Mbàkke mu ne ko Mbàkke mu ne ko gaal gi dee daw te da nga ne doo tooñ sa morom doo tooñ sa borom Moodu Mbàkke boo faatee waxtu wi da nga sa borom bu sa boo jullee sama gaal gi da nga ma tooñ ba sànni ci géej gi di sëgg di siggi benqaleen kon kooku bàyyi bas ak baara rek ko man maa mi doon na si góor ga demoon maa yoon ba gaglu futa gàgganti gànnaar ñu naan ko yàlla gabon màggal gii muy màggal Touba Mbacke muy julli ga ca ma baafel wil ak kori ga ca numbel weli mooy màggal googu moom lañ ko faye sëñ Touba jërë ngeen jëf waaw jërëjëf mbokki taalibe yi euh, ñi ngi leen di xamal ne ñi ngi fii ci kër alaaj njaxatloo ci màggalu Sanosi xam ngeen ne at mu jot njabootu Baay Njaxat yëpp dañuy ñëw taxawu ko fii ci kër gi euh, dañuy jox kàddu gi nag soxna Amilo mi nga xam ne moom mag ci seeti alaaj njaxat yi bu ko defee nekk fii ci waañ wi euh, gone yi ne ci ginnaawam bu ko defee mu sànni ci ay kàddoom naka ngeen dunde bis bi ak nu ngeen ko waajale ak ci nar. asalaamaaleykum wa rahmatulah xanaa kontaan rek ak cant te ñaanal suñu maam ja yàlla xëppeel ko àjjana ndax liggéeyam moom mate na ko sëkk mate rek def na moom. jërëjëf jërëjëf jërëjëf loolu am na solo waaye dañ laa bëggoon a laaj maanaam euh, nu ngeen nu ngeen nu ngeen waajale bis bi. xanaa góorlu rek góorgóorlu rek kay lañ waajale bis bi moom góorgóorlu bu baax a baax a baax parce que yéen liggéeyal sëñ Tuubaa bu baax rek liggéeyal suñu maam ja eggale liggéeyam ndax moom liggéey na sëñ Seex Mbàkke ba am ngërëm moom ñu ngi fii ci kër El Hadj comme ni ñu baaxoo ànd rek liggéey bi fenn fu nekk rek ñu dem fa euh, xool ni ñuy dundale bis bi wax dëgg yàlla ndax ñoom ñoom ñoom ñoo ko dese ñu ngi fii nag ci kër El Hadj Ndiakhate Lo di ab taawam di magi xale yëpp. nga xam ne taxawaay bi fii moo ko jiite nekk fi taxawaay bu rafet léegi nag ñu ko doon jox kàddu gi di ko laaj sëñ Mbàkke bis lan mooy solos bis bi ak mag ñi niñ ko taxawoon bu njëkk nekkoon ci di ko def ba tey jii ngeen yor ko di ko def ba doom yeeg sët yeeg ñëpp fekk si leen ci looy wax xale yi ak looy wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen kanam tey te ëllëg ñu bëgg a fas yéene yore màggal gi di ko doxal bisimilah aousubillahi min shaytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim jërëjëf waaw moom day bis bi moom dafa mel ne wax ci moom jafe na jafewul daal ni mu demee itam moom yaakaar naa mu yaakaar naa ndaw li nga xam ne moo ñëw di dima <clears throat> ko laaj si ñàkkul dem ne sax moom a gën a xam ndax li ko sabab moom mooy ni ñu ko xamee ni ñu ko miine déggee mooy sëriñ bi ak dikkam fii ak seen fii jógee ci jógee jógee ci tukki ba ak si fii ci Ndam Sanosi te fii ak Ndam Sanosi di 2 kilomètres 900 di première dëkk bi sës ci Sanosi féete ko penku nga xam ne sëñ bi bu mosaan te kàbbar moom fii lay jublu. loolu nag daf jeexit ci dëkk bi joo xam ne ji taxoon na laata ñuy yëkkati màggal gi ñu daa màggal fii ci dëkk bi ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa moom bi nga xamee ne loolu am na nag euh, yàlla def bi ñu demee ba 68 ni ngeen ko ni nga ko xam naa yàgg nañ la ko wax première daayira ba njëkk a yóbbu yët sëñ man nag dem ma ci woon booba ndax man boobu xawle tuut tàng ndax 68 waaw léegi war naa nekk euh, cinquante ans man jotu ma woon a dem waaye maa ngi ñi demoon daal fekk dañuy def ndaamu moor ak ndaam balla ak ndaam Sanosi dëkk yu woso yi te soreewuñu ñoo bokk ab daayira di bokk di bay ab tool ah, di koy jébbali xalif général léegi nag yàlla def na première tool bi nga xam ne moom lañ njëkk a yët Sëñ Blaat muy 68 bi nekkee xalifa bi ñu demee bi ñu présenté ko ne ko waa ndaamu moor la ak ndaam balla ak ndaam Sanosi bi ñu waxee ba nag mu ne ah, ñu ne mu ne waaw kon fii nii yéen ñetti dëkk ngeen daal yu de yu yu yu was yu wasoo ñu ne soreewu leen ñu ne déet mu waaw waaw mooy ndaam sànnoo si gi sëriñ bi wàcc ñu ne ko waaw googu la kay mu ne waaw ndax bis boobu yéen ngi koy màggal ñu ne ko waaw moom de ñu ngi doon màggal nag kenn ku ne yaa ngi màggal sëb dëkk di ngir yàlla ak jëmi sëñ bi mu ngeen ko boole lépp te di ko def ci ci ci di ko def di ko di ko def ci ndaam sànnoo si googu ndax bis boobee kat toll na noo xam ne nii ñun ñii noo waroon jóge fii dem dem ndaam sànnoo si di ko di ko di ko di ko màggal ndax foofa fa la sëñ ba njëkk a ko ñu ganale ko fa waaw ndax bi muy door a jóge ci tukki bi ndar rek la wàcc bi mu jaaree Dakar dafa kon dem ndar bi mu jógee ndar bi ñu ko signalé ne ko libéré nañ la libéré liberté provisoire boobu dafa daal di dugg daal di ñëw Louga bi mu ñëwee Louga wàcc saxaar gi daal di laaj aw fas ñu takkal ko fas mu daal di jóg jublu Touba bi mu jógee jublu Touba nag ni ngeen ko xamee bari jàmm siise la njëkk a jaar ñeenti fan koor ga waxtu waxtu timis waxtu gannaaw timis la fa agsi xaw faa fanaan ba ba bët set ba bët setee nag mu xëyee fa jubal si Sànnoosi loolu mooy sababu bis bi si ma wax sëñ Blaat ne kon nag na ngeen ko màggal ko fonk bu jubatee ngeen ñëw wax ci laaj nu ci laaj nu ci ñu ñaanal leen ci danañ ko ànd ak yéen ñu ànd ko sëñ Blaat ba fa soob yàlla ñu kon ne ànd ko sëñ Fallu sëñ Saaliwu lépp rafet ci xocc itam macha allah suñu baay ak suñu nijaay ak suñu mag yi ko yoroon léegi rek dox na ba ñëw suñuy ndoxanun ñi ba mel na sax xam ngi rëcc ndànk-ndànk ndax man mi ñu naan kat yaay mag mi feeg yaa war a wax màggal gi mën naa ne dara def ci dara damay ñëw donc di seetaan si ak fekke si xanaa ku ñëw mën nuyoo yow jàmmante yow waaye daanaka mën naa ne seqewuma ci benn jéego du ma dem ci naaj wi duma ma duggi du ma jëndi leen lépp ñu gën a ñoo ko yen kon nag mel na ne mi ngi génn suñuy suñuy kii daanaa ko def nag ba ma ca tolloo waaye léegi mel na ne gone yi nangu nañ ko nangu giñ ko nangu itam dafa mel ne moo gën a gaaw gën a rafet gën ko nangu woon ci sunuy baay ak sunuy maam ñoom dañoo jékki-jékki benn bis rek daanaka ñoom wëlbatiku rek fab ko daal léegi ci sunuy loxo léegi nag waaye lépp di sant yàlla rek ndax liggéeyal sëriñ bi rek la te sëriñ bi it moo mel noonu rek li ñuy wax naan amul tànk gannaaw tànk kanam rek la am ndax wax dëgg yàlla daal fi mu toll nii nii muy toll nii ak ni ngeen ko gisee xaw ma fu ngeen jaar ak lu ngeen lu leen won waaye dëkk bépp noonu la mel fii fii maam Bayloo lañ koy wax di doomi Muudu Mbàkke Loo moom sëriñ Bayloo daalu Karim ak Maxtaar ak Mor Faa Demba Loo ñu ne fi itam ci pencum ndaam Mor di ndaam Mor Faa Demba wuy si ci bis bi nga xam ne mooy bisu màggalu Sànnoosi di màggal gi nga xam ne itam li ko sabab mooy dikk goo xam ne Serigne Touba ñëwoon na ko seet si woon ko suñu maam Serigne Siré Lo Sanna mu dëpp ak bisub gaaw di gaaw yi tey ji itam di lu jafe itam xay na ci eh, bis yi ñuy màggal muy tawfeex joo xam ne nekk na ci màggalu ren jii muy bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba woon sànna moom la tombeel ren jii itam muy bisub gaawu juróomi fan ci weeru koor ba juróomi fan ci weeru kori ñu di ko màggal itam ci mbooleem ëtti ndaam yëpp nag ndax ndaami moom yëpp benn la rawat na itam ndaamuk sànna ak ndaamuk moor ak ndaamuk la ndax ñoo bokkoon def benn daayira dem ci sëñ Abdou Lahat jébbal ko mbooleem ñetti ndaam yëpp mu di genn sëriñ bi itam laaj leen ndax am ngeen ab bis ñu ne ko déedéet moo wax leen ne leen yéen ñëpp na ngeen maase kon ci di màggal juróomi fani koor te mooy bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba seet si woon Serigne Siré Lo Sanna euh, bis boobu nag mooy lu fi dajale mbokk yëpp kenn ku nekk itam di ko màggal si waaye itam di ñëw ci penc di ko fa defee ngir dundal mbokk gi itam waaye itam fàttalikuwaat itam euh, dund gu rafet ga nga xam ne Serigne Touba dundoon na ko suñu maam jooju muy Serigne Siré Lo Sanna waaye tamit fàttalikuwaat itam jaar-jaari mag ñooñu itam ak seen i jeexit waaye itam dundalaat ci itam dundalaat dundalaat itam dundalaat itam sunu sunu bokk loolu yi mooy li waral kenn ku ne bàyyi sa yitte bàyyi sab dëkk bàyyi say sab liggéey ak sa lépp rek ñëw di def si loo xam ne itam mënuñoo def lu ko gën a kawe ba lu ko gën a màgg ci at mi euh, loolu daal lañ lañ lañ xam ci loo xam ne bokk na ci li waral mbokk gi daje fii itam ci ndaamuk moor ngir di fàttaliku euh, dunduk sunu maam ju baax ji muy Serigne Siré loo Sànn waaye tamit di xeeñtuwaat itam jeexiti sunu yaakaar teeg ëllëg muy Cheikhul Khadim ñoo ngi leen di siyaare di balu àq te di leen baal yal na nu suñu borom yàlla boole jéggal suñuy bàkkaar yi bii rek jib yi nëbboo bu fee ñu nu xam ak yu nu xamul ci barke sëñ Fàllu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla bu baax nag ndax lii lépp day suñu waajur bu góoroo moo ko doon def di ko liggéey ci këram géej ba mu ko bàyyee ay ay doomam yu góor ñoo ci nekk di ko liggéey ba tey seeni doom nangoo ko ci seeni loxo ak seeni sët ak seeni jarbaat muy première ba di Alaaji Njaay Aslo Omar Lo Alsaan Lo Alsaan Lo ba tey ak Baara taalaloo njagaloo Lo Mat Seex ak ak Ibrahima Lo ñu ngi leen di sant di leen gërëm daal di di leen ñaanal yàlla luñ def ren bu déwénee yàlla nañ man lu ko ëpp ci barke sëñ Fallou di leen ñaanal nag ci juróom-ñaari sëñ lu ñu def ren ji rek bu déwénee yàlla nañ man lu ko ëpp ndaxte wax dëgg yàlla day jàmbaar lañ seen dara tardé wut itam seen dara paralysé wut ñu ngi leen di santaat bu baax nag te di leen gën a ñaaxaat lépp lu ñu def ren bu déwénee ne yam nañ man lu ko ci barke sëñ Fallou di ñaanal seen waajur yee toog nag ñu yàgg leen a jiite di ñaanal sëñ Mortala loo bu ne ci kër gi yàlla yiir ko sàng ko malaalum sutura ban yàgg ko fee ci barke sëñ Fallou ndax moom itam nag lu ñuy njaaga mooy njaag ndax mooy xalifa kër gi Assane loo topp ci xalifa topp ci ak Alaaji ak Góora Sarr ak Madou Loo sama sëriñ ne yàlla sàmm sàmm nu sàmmal nu sunu njaboot musal nu ci catlu aay ak lépp luy lore ci barke sëñ Fallou. nag wér ak wér la yàlla sàmm leen sàmm njaboot gi képp lu ñu yóotu rek yal na ko yàlla ak sëñ Touba jox képp lu lu gën a kii rek lu gën a xéewale rek yàlla yokk ko xéewali xéewali baawaan saawaan man ma toll fu ma jullee yéen rek laay ñaanal yàlla na yàlla na nangu ñaan rek. ndogu yeeg yooyu. xanaa fas yéene da togg togg bu sel bu silwise rek jox ko jaamu yàlla yi fi ñëw bëgg ñoom lool nag te kontaan jërëjëf. bu fas yéene nag ñi fi ñëw ñu teral leen berndeel leen waaw di leen fas yéene teral berndeel leen defar ndog yi ba mu baax rek lépp loo xam ne aaju na ci bis bi rek ñu ñaan Sëriñ Tuubaa mu yombal ñu ko rek def ko ci bis bi. di sant nag sama rakki góor yi nga xam ne ñoom la àndal mooy xale yi sol ci set yi ñi nga xam ne maa ngi ñoom ñoo bokk ndey bokk baay bokk lépp maa ngi leen sant di leen gërëm. ndax ay xale yu baax lañ ay xale yu dëggu lañ ay xale yaru lañu tam du ñaanal suñ kilifa yi nga xam ne moom lañ bokkale ci kër gi ak kilifa gi nga xam ne moo doon bàyyi Abba gé dugg génn génn àdduna ñu ko ñaan yàlla yàlla saa borom yokk leeram yàlla taaf ñu ci barkeem yàlla may sama rakk fan yu gudd wànd wér a xéwal ci barke sëñ Fallu sama sama eh, yaay yëpp jërë bi daal moom neex na dara manqué wul ndax te daal sëriñ Touba daal ku na xam na ne fii moom ñëwoon na fi. ndaxte euh, weeru koor yëpp mu weer ko woo ba mu jeex daal loolu doy na sant yàlla ci waa Ndaam kon nag ñu nga sant bu baax a baax a baax tax bis bi daal dara manqué wul mbokk yëpp teew nañ tamit kenn manqué wul ngir jëmi Serigne Touba rek jaral na ko ñu nekk si naaju ak sunu woor ak yëpp Serigne Touba moo na ko jaral kon nag Serigne Touba mi tax ñuy sonn yàlla na boole dimbali jàppale na boppam. macha allah màggal gi neex na ndax sëñ Touba dafa am dafa dem bëri am fa ñeenti fan ñëw sànni am fa fan ñu di ko màggal. màggal gi nag moom baas baa nga ndaam waaye màggal gee ngi sa mi ngi baas baa nga sa waaye màggal gee ngi ndaam tubaarkàlla nu fekk ëlla jàbbaloo mu baax ma nga xam lim fi baw dara gayaxu ci si raxu jëkkumba gay raxu jëkkumba yalaak daarong maam jaay ala dem ba muxtaarum ndaam borom dëgg jaan mi ci ceex ku baax kokkeeg ndaam borom juróom yaari ndaam yi xalima gaa ngi ndaam teggaa ngi ndaam daajaa ngi ndaam mooy makkum sëñ Seex Mbàkke jeeg ji gayaaxaluñu bis bi gone góor yi gayaaxaluñ ko njabootam gayaaxaluñ tubaarkàlla saa boo yegg see defe ne ëlla ji jógewu fi jëmm ji dem na waaye jëf ji ak lu baax li mi ngi fi nu nag fi la nu daan dal ba na ngeen suñuy borom kër di fi dal man Penda Seck laa dëkk sagata sama borom kër Modou Mbaye àndoon ak la jàpp baax di fi dal ba na ngeen ni ba tey teggeegu ma waaye sama dara manqué gu li ngeen mën di bu demee ne nañ mën nu kopp nan nañ ko teewe tam wërsëg ak fan wu gudd. waaw asalaamaaleykum màggal gi de moom sunu màggalu famille la juróomi fan yi la sëñ Touba ñëwoon ci. ñu di ko màggal suñu baay dëkkoon fii ñuy dekkal kër gi ñëw fi bëgg dekkal dëkk bi daal yàlla defal ñu ci xéewal ñu defal ko bay toog bay baas fii di ko màggal daal ndax mbirum sëñ Tuubaa la ñëpp ko bokk fépp lañ koy buñ ko màggalee fii dem na buñ ko màggalee sànna def la daal ñu bëgg daal ñu ñaan yàlla defal ñu xéewal ban mën a defal dëkk bu baax ba màggal ko màggal bu baax yàlla defal ñu xéewal ak wér ñu fekk ko ñun ñëpp ndax kër yëpp benn la woon waaw ñu bëggaan ñu doon muy benn lépp rek ñu doon ànd di dekkal kër gi di dundal kër gi daal pour sama papa daal fa mu nekk dana taali ndax lii koo yàgg bëgg loolu rek lañ ci bëggoon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di leen masawu coono waaye murid rek ca derga ndax bés bi mooy bésu Cheikh Cissé Lo Sànn taalibe yëpp di daje nuy ñaan ci yàlla ak yonant bi ak Serigne Fallou Mbacke sunu xalifa bii toog di soxna Marème Lo yàlla bàyyil nu ko fi ca kaw ca kanam ndax lépp loo xam ne am na ko bu jógee sànnoo si gii di suba muy para pare bi déwén ma ngi koy pare dara warunu dara warunu nuy ñaan ci yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba yàlla yàggalal na ko fi lool tem wér lool ndax ci ginnaawam rek lan lan lan nekk waaye taaw bu matub taaw la nu di ko ñaanal nag ci doole yi sëñ Fallou Mbacke yàlla fu la ndil nu fanam bi ba mu diw doj ci barke sëñ Touba ay doomam jàppale ko bu baax nag ndax man maa nekk ci kër gi maa ak sama borom kër waaye dara lu dul suñ doole laajuñu ñu ko nuy ñaan ci yàlla ak yonent bi sëñ Fallou baak lu mu bëgg ci kër gi rek yàlla defal ko ko. ziyaar ñëpp ñu nekk ni nag sama kër maam Madou njabootu Madou moo fi nekk ay sëtam ak ay goroom ñu jógee nag ba Touba ñëw dal suñu kër maam rek fas yéene defar ba mu baax lekk yaa ngi nii fi dara jeexut dem ba léegi dañuy tuur dañuy def lépp affaire yi buuju na Seex Lo daa lekk ba fër ma nga ne màggal gi moom neex na moom di ñaanal sëñ Siré Lo rek. ah yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ndax li lépp moom la ndax moom la fi Serigne Touba fekk si woon ndax juróomi fan yi sànni moom ñëpp dégg nañu xam nga ñun li ñu am ñëpp ko bëgg te amuñu ko mu Serigne Touba seesuñu ba weer fi woor fi weeru koor ba koor jeex ba jullee fa julli korité kon sant yàlla la rek ñu xam ne daal waa Ndam daal bokk nañ ci famille boo xam ne du famille bu ndaw ñu gën a fonkaat suñu bopp rek macha allah. ba gis nga man lii de maa ngi ci de maay axlu café ah li ñaan yàlla ak Serigne Touba rek ñu teewe ko ay déwén di déwén rek ci barke Cheikhul Khadim di wax jërë ngeen jëf kontaan nañ torop nag si suñ xale yi nag macha allah yàlla musal ci seytaan ak lafa njëtat rek ci bak seexul Khadim wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki waa fondation Maba ñoo ngi leen di siyaar bu baax tey tuubaat bu baax ci jégglu ñoo nekk fii ñoom itam organisé bis bi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim ñëwoon fii ci Ndaam Sannoosi ci Serigne Sirelo ñoom ñi it ñu ko daa taxaw fii ci Ndaam Sannoosi sunu maam daa ko taxawee muy maam Abba waa tund wi ñëpp xam ko ci mu amoon ci pasteef lool ak pas-pas lool ca bëggoon ko lool nag te léppam lu masaam rek mu yemal ko ci bis bii tey jii muy dox ba ak njabootam di ko def ay doomam nekk ci ñoom itam naka sunu maam ci jàppe woon maye woon ko yitte noona ñu mu nekk woon ko noonu doon ko doxe noonu moom itam eh, ñoom itam yàlla dogal ñu dem ba tey jii eh, ay sëtam taxaw fi di njabootu maam Abba yépp nag ñoom di taxaw taxawaay boobee nga xam ne seen maam ji daan ko taxaw seen waajur yu nekkoon ci ba tey ji ñu koy aw di aw seen waajur noppal leen ci yàlla dogal gis nga leen ni ñoom itam ñu ay ndaw yoo xam ne eh, yu sawar lan yu bëgg it li ñuy def lépp luñ am eh, yamale ko ci bés bi bu bés bi xasee dikk it lépp lu waay jàppante koy bàyyi ñëw ci bis bi ba bés bi jag ngir bëgg lépp rek bés bi jag ak suñu waajur wa li mu ci bëggoon mu amoon ko moom itam bàyyi fi njaboot gi njaboot gi amee ko noona tey jii loola di dox ba egg Touba Arsanti suñu jëriñ nekk fa moom te muy Serigne Mor ak mboolem ñoo fa nekkal yëpp ñoom tam ñoo tam jàpp ci liggéey boobu dox ba si fii tey jii wax dëgg yàlla macha allah rafet na lool te mboolem lu muy tàng-tàng ak lu muy sore sori lépp lu mu ci mën doon ñëpp ñi ñu doon koy bàyyi ñëw ci bis bi tey jii doxin wi rafet lool gis nga ko ñu ngi ko gisee nii nga xam ne ba bés bi teroo ba koor gi teroo ba léegi kenn ku ci nekk sa yitte yëpp moom mooy bés bi wax dëgg yàlla ñun sax dañu noo bett moom ba tax dëgg-dëgg moom liñ ci waroon wax sax nu ko mën a wax waaye ñoom tam ñoo ngi leen di sant di sant Serigne mortale mi nga xam ne moom itam yéen a bokk liggéey bi mu mel ne moom tam mi ngi fi ndax lépp luñ fi mas a yëkkati wala ñu wax wala ñu bëgg ko ci eh, mi ngi ciy dox mi ngi ciy wax mi ngi ciy jëf ak mboolem ñu nekkal ca foofa ak la jege foofu yëpp nag kon wax yàlla Ah, dañuy ñaanal suñu maam ji suñu borom yokk leeram taasuñu ci barkeem ba liggéey bi nga xam ne sëriñ Siré Lo doon noonu ko fi nekk ak yéen ñi nga xam ne ñoo liggéey bi te ànd ci liggéey bi noonu ko suñu waajur demoon ñoom tam ba suñu yàlla dogal ñu am jaboot gu ñaanal mboolem koo xam ne egsi na ci bis bi wala mu amoon yéen egsi ci moom tam mu dem ba yéen ji nga amoon yow nga am jaboot gu la noppal bay dox yitte jooja comme ni nga ko daa doxee eh, di santaat bu baax nag tey ñaanal bu baax tey gërëm tey tuub baax tey jéglu ci kàddu yi ndax dañoo xaw a bett ba daanaka mën na ci wax ba waaye li wér ci wër mooy ñëpp bëgg na ñëpp kontaan nañ wasalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla bin bi nga xamee ne tamit euh, euh, liggéey bi noonu la doon wéyee ñu dugg ci ay kër jël lenn ci nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi kenn ku ne àddu ak sa kàddu tamit famille yëpp daje fi saafonte jokku mbokk lépp dox fi rek doon liggéey boo xam tamit yombut ndax weeru koor la dajal kon ginnaaw loolu nga xam ne jël lañ mbooleem euh, li nga xam ne moom moo xew ci dëkk bi tamit ak yu demee doon ànd kook suñ télé bi nga xam ne mooy Touba Argentine TV kon xam naa dañuy taxawlu foofu rek di leen wax ne ba beneen année incha allah rabbi di ñaan at mu ñëw rek yàlla na at mi passé ci barkib sëñ Touba Xaadim Rasul ak xaside yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah